sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di lu xibaaru làmb ji ci Equivox TV mbokk yi nuyu nañ leen ñu am mbégte nag di jàkkaarloo ak yenn saa su nekk nee naa leen nii lay demee lépp loo xam ne rek jógee na ci làmb ji dinañ toog fii daal di leen koo faram fàccal mais ma ci ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. maa lay fay soxna Ami. Eh, mbaa yaa ngi waa sant nañu yàlla bu baax. waa ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñi ñuy suivre amuñu seen fay di leen ñaanal jàmm di ko saaxu si ñoom fu ci waay mën a nekk rek. jërëjëf Babacar mm-hmm. voilà mbokk téléspectateurs yi bu baaxee rek ñu dem seetaan revue des titres daal di ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 23 février 2021. dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy dooreete ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci xëtam mu njëkk ki nga xam ne moo di Eumeu seen ak Bombardier mel ni ki nag leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci dafa jàpp ne bu dee Eumeu la Lac lay jonganteel Bombardier war a jongante ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye moo tax yëglikaay bi jàpp ne nag ñaar ñii moom boo bëggee dégg dëgg moom dóor dóoraat daal la ñu teg seen ay bët maanaam moom la ñu bëgg def maanaam Eumeu daanaat Lac la bëgg Bombardier itam daanaat Balla la bëgg yëglikaay bi di suñu làmb tey moo xëy dikkenu boobu xibaar ci bëgg bëgg-bëgg ñaari mbër yooyu wala boog la nga xam ne moom la ñu bokk la ci seen combat yi ñu jëmale ñeneen ñoo xam ne ni moom fa nu nekk moo baaxul maanaam daal fa nu nekk bëri na bir wi tubaab di ko wax son de turbulence muy ki nga xam ne moo di Siteu ak Papa Sow te ñoom ñaar boo xoolee ñoo jëm ci benn combat boo xam ne ñoo ko fas yéenee jongante te ku ci ne fa nga jóge baaxul ndax bu dee Siteu la fa mu mujje ku ne xam ne ko digganteem ak guy gi te dafa ñàkk boobu combat Papa la te ba tey moom itam daa ñàkk booba bés moo daal ñaar ñi day fi nu taxawee baaxul zone turbulence daal la nu nekkee moo xam Siteu la moo xam ka nga xam ne nii moom moo di Papa Sow la ñeneen ñoo xam ne nii moom soo bëggee dégg-dëgg bu fekkonte ne dooñu dugg ci zone de turbulence moom nuy def ba génn ca fi mu nekk nii ca la ñu ne muy waa làmb ji waaw ndax yëglikaay bi xam nañu ne daal daal tey jii moom waxtaan fas na yéene am war a dox ci diggante CNG bi ak promoteurs yi li ko waral nag mooy xëy na sam ki li nga xam ne nii moo di làmb ji ñu wax ne daal ubbiwaat ko la ñu fas yéene def ci premier premier mars bi ngir nag ñu fas yéenee delluwaat ca làmb ja maanaam bëre ji yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na tey jox ko kàddu mu wax muy ka nga xam ne moom moo di Abibou Diop léegi nag moom moo jiite wala boog Abibou Diallo moom Abibou Diallo mii nag daal moo jiite làmb ja nga xam ne moo nekk léegi ca région de Thiès maanaam CRC bu Thiès daal moom mii moom mooy ki ko jiite la mu xëy di xam ne nag leer na jàpp na ne daal liggéey rek moo fi des ndax nag daa jàpp ne ña nga xam ne ñoo fi nekkoon yoroon liggéey bi lañ fi def moom lu leer naññ la lu kenn dul laam-laamee kon jàpp na ne ñoom ñi fi dikk nag li leen war mooy daal ñu joxante lëngoo joxante loxo ànd xam ne nii daal dana sori lool lool lool moom daal loolu la xëy tey di ko wax jàpp ne daal ña nga xam ne moom ñoo fi newoon la def dafa leer muy may sa Njaay ak ña mu àndaloon kon moom daal jàpp na ne fi mu nekk nii moom li mu gis daal mooy ànd rek bokk ndey bokk baay tey waxante dëgg tey liggéey leneen loo xam ne nii tamit yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci mu mel ne nag soo bëggee dégg-dégg daal fi mu nekk nii moom ci wàllum ay CRC yu yoo xam ne yu normal la jamono ji ñuy wax moom yëglikaay bi jàpp na ne ñaar lañu ci réew mi muy bu Thiès ak bu kaw Kaolack ñoom daal fi mu nekk nii ñoo nekk ci aw yoon maanaam maanaam li tubaab di wax en règle ñoom ñoo ca nekk yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw di nu wax lu mel ne ki noonu buñ fa jógee dem record lan fay fekk tamit mooy rey réunion ba xam ne amoon na démb fa nga xam ne moo doon ca CNC ba yëglikaay bi ñëw na tey dikkal ñu ci ak la nga xam ne maanaam daal tukkee na fa moom record commission technique fas nañ ko yéenee teg boo xam ne ni dana saytu lu jëm ci wàllum daal làmb ji buñ ne nañ dem ca huis clos daal ña nga xam ne ñooy waykat yaag journaliste yaag ña nga xam ne daal nu ca waay di duggee daal commission technique lañ war a teg boo xam ne moom moo fas yéene nag saytu lu mel ni ki noonu yemuñu ca mu mel ni ki nag ay test ay test tamit ku ko doon xaar ci mbër yi daa mel ni loola daa mel ni ba tey daal ci liñ ñu xëy xamal ci xalim ak abu nduur daa mel loolu tamit ci kàddoog aadama bopp daal du lu war a mën a nekk wala boog du luy nekk maanaam daal la ñu fas yéene def daal ay thermoflash ay raxasukaay ak ay mbir yoo xam ne daal bu buñ ko defee maanaam mbir ma dana mën a bañ a am fa nga xam ne moo de ca làmb ja yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu dikkal nañu tamit ci lutte olympique baag la nga xam ne nii moo ca war a xew wala la war a xew ca diggante ka nga xam ne moo di Evelyne Diatta ak Ambroise Sarr yu mel ne ki noonu mel ne ki noonu ñoom wàllum siir si daal moo leen topp taxawu leen yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax lu mel ne ki noonu kon revue des titres Babacar ñu daal di ñoom nag ci li nga xam ne moo di journal suñu làmb mhm. ñu xëyee ci seen xët bu njëkk combat bi di Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 Bombardier ak nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ñoom ñaar nag seen combat yooyu Bombardier daanoon fi Balla Gaye 2 Eumeu Sène moom ak Lac de Guiers moom itam mu amoon ca ndam mu mel nii rek bu ñu dellusiwaatee li ñu gis rek mooy doo dooraat maanaam dañoo bëgg a làbbaliwaat daal ñoom ñaar ñooyu waaw parce que li waral tey yëglikaay bi samp boobu laaj ku ne xam na ne Bombardier ak Balla moom ba ñuy bëree Balla Balla dafa ñàkkoon combat bi Bombardier daan ko Eumeu Sène tamit ñaari yoon yu mu jot a bëre ak Lac premier bi dañoo niil deuxième combat bi mu daan moo tax xëy na yëglikaay bi jàpp ne ñoom ñaar dóor dóoraat lañ teg seeni i bët effectivement loolu lañ bëgg maanaam te wax nañ ko ma wax na ne day maanaam daan lay lay defaat moom la bëgg Bombardier tamit wax na ko waaye ndax dina am loolu fa la question bi ne parce que tamit ñi ñu daanoon muy doomu géejawaay yooyu ñoom tamit dañoo bëgg a fayu yaa ngi dégg kon muy ay combat yoo xam ne nii daal ñaari combat la yoo xam ne ay ramas yu nar a méttee métti la ci diggante ñeenti mbër yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko seq parce que ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu parce que li tax mooy boo xoolee ñoom ñoo ñu noonu muy Lac de Guiers di Bombardier di Balla Gaye ñoom ñëpp Eumeu Sène daan na leen yaa ngi dégg nga xool Bombardier ñëw daan ki nga xam ne nii moom moo di ba tey Balla Gaye ni muy waaw waaw seen digg waaw fu doy waar la daal <laughs> moo lay wan ne daal te Balla Gaye de fi mu nekk nii moom ku ne dégg na li mu wax bëri ki démb bi moo ko dékkee micro nee na moom grand bi day jéem a teg xel rek waaye xam na ne la amoon ak lii amaat bi yoon mënta doot benn lagi waaw lag itam <laughs> loolu la jàpp jàpp na ne Eumeu Sène day fo waaye jàpp na ne bu ñu ca demee ba ñuy du du ko arrangé muy ay combat yoo xam ne yu nar méttee métti la ndax xam naa du yomb ci ñoom ñeenti ñëpp waaye ci combat yu métti yooyu ba tey am na beneen bu ci amaat mhm. muy diggante Siteu ak Papa Sow ku ne xam na ne ñoom ñaar ñëpp dañoo jóge ci defet a bi jàpp ne ñu ne daa bëri yëngu-yëngu tubaab naan ko sonde de turbulence ah parce que li tax mooy ku ne xam ne ne Siteu bi muy mujj a bëri Léopold la mujj a digganteem ak guy gi guy gi daan ko Papa Sow it foofu la mujj a bëre Léopold Senghor daan ko muy ñaari mbër yoo xam ne nii tey Pa Abdou Fall moo tëgg seen combat moo tax nag wax dëgg yàlla ku ne xam na ne fañ jëm moom dina metti ci ñoom ñaar parce que kenn du bëgg dugaat ci defet parce que ku ci dugg day metti ci yow ci la des ci li des ci sa carrière kon defe naa moo tax zone bi ñu nekkee moom waxuma la turbulence sax waaye bëri na yëngu-yëngu lool te lëndëm na waaye nag sport la ñuy defa ah il faut buñ ñaan yàlla yegg seeg jàmm rek parce que il faut am am solo rek mooy képp ku ñëw ca bés ba yàlla na nga dikk ci forme dikk bëre que le meilleur gagne. Euh, nga xam ne moo di promoteur yi ñuy xool rek modalité yi nga euh, de dina am tey bu soobee suñu borom xam naa ne bu waxtaan buñ ci génnee. incha allah rabi ndax dinañ leen fa demal sax lu fa tukkee dinañ leen ko taatana indil leen ko ah li ñu ñaan daal mooy yàlla nañ fa jëlee loo xam ne daal dina nekk njëriñu làmb rek parce que ñun moom làmb ji di dox defe naa ne amal na sénégalais yi njëriñ waaye ñun ñi nga xam ne tamit buñ ñu xamee làmb tax ñu xam ñu amal nañu njëriñ kon dox gi moom ñun dañ koy souhaiter saa su moo di Abibou Diallo moom nag mu ngay teg rek na xam ne moom la war a def rek ngir liggéey ba foofu jaar yoon. waaw ñu koy wax rek bon sens ci loolu nga xam ne moom mooy Abibou Diallo équipe bu bees boobu nga ne ñoom ñoo jël place ñoom Maysa Ndiaye ci CRC bu Thiès parce que tamit àddina moom noonu la demee nii la maanaam dara éternel maanaam dara nekku fi di continuer Maysa Ndiaye ku ne xam ne ne moo ko ñamu nekk noonu foofu defoon nañ liggéey bu am solo yàlla dogal liggéey booba tey moo ko indi tey ñu dénk ko lépp luy lambi dóor ci Sénégal mu nekk premier vice président wu CNC ñu jël place am jox teg fa Abibou Diallo kon bu Abibou lañ koy ñaanal mooy moo équipe bi mu àndal ci commission ci région de Thiès pour doxal fa làmb yàlla nañ fa def lu raw lu ñoom Maysa Ndiaye defoon loolu lañ leen di souhaiter journal record mhm. fekk nga xam ne rek moo di Bira ak ay ñooñam ñoom nag daal dinañ amal am ndaje démb fële ci euh, CNG bi arène nationale sax la euh, ñu ñëw rek ci modalité reprise ñoom itam ba tey waaw parce que gis nañ ne démb loolu am na commission technique teg nañ ko yaakaar naa boo xam ne pour war a saytu bu fekkee laa ma ci ubbi na comme ni ñu ko waxee ñiy dugg bi ak génn beeg yu mel ne kii noonu ak presse beeg ñuy waaye ak microcentre yeeg yooyu ah, yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne comme dañu ne ci jamono joo xam ne maanaam corona danoo ngalab ah du mën a ñàkk kon yooyu buñ ca yeggee faw ñu xool nit ñi nu ñuy duggee nu ñuy génnee mm-hmm. ba tey tamit wàllum test yi ci li ñu jàngat ci record maanaam du am test comme ni ñu ko xalaate woon ci mbër yi mais li am mooy daal thermoflash ay raxasoog yooyu ah loolu nag loo ci mën a digg daal moom nu ñu mën a def rek pour respecter les mesures barrières ba nga ne làmb ji dina mën dox moom nañ ko jéem a def parce que tamit ku amul la nga bëgg am la fa sës mesure barrière tam sans test loolu na ah waaw xëy na buñ ku ñu teg thermoflash thermoflash bi bu bu bu ñu xoolee sa tempérament yaram mm. comme affaire bi bokk na ci li koy wan ne tempérament tàngaay yaram bu jéggi dayoo xëy na bu ñu la tegee thermoflash bu sa tàngaay yaram jéggiwul dayoo da xam ne yow mii corona newul sa yaram parce que ñu man mi liñ ma teg thermoflage ren bëri na <laughs> yow mii noonu gómi su ma leen noonu <laughs> waaw euh, incha allah rabi ah bëgg nañ fa dem parce que ñu lépp luy làmb rek dañ siy dox parce que comme li ma ko waxee sànq rek làmb lañ ñu xamee waaye dégg mais nag comme tamit ay xibaar la dañuy jéem a dem rek utali ko ñi nga xam dañuy xaar ci Equivox TV di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di tamit vraiment am mbégte ci liggéeyu Equivox parce que tamit wax dëgg yàlla Euh, man xam nga am dafa am loo xam ne dafa may gën a sawar daf may gën a may motivation parce que gis naa ne bu dee si côté sport bi la liñ ci war yëpp ci surtout làmb ñu ngi ko ciy def ñu ngi ciy def lépp lu ñu man boo demee tamit ci politique bi social beeg yeneen yi ko demee noonu gis nañ ne tamit yéen ngi ciy liggéey lu am am solo tamit di ci jaajëfal ku mel ni ki nga xam ne nii moom mooy Samb xam nga ak équipe bi yëpp technicien yeeg tout le monde ak kilifa ak kër gi wala kilifa yi di bay jaajëfal sax ki nga xam ne moom mooy ass bi nga xam ne tamit moom mooy togg ceeb yu neex yi ah man a ñàkk dama koo bëgg nga bëgg ko kon astu tamit maa ngi koy jaajëfal déet ci nga bokk yaa ma raw yaa ma dàqal ak yow voilà xibaar yi jàppandar képp lii mooy da Equivox ci kaw ci kanam ci lépp lu jëm rek ci wàllum information jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi doon a teewlu ñu leen dem di daje rek ëllëg incha allah